ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen dikk ak yéen ci li nga xam ne mooy xibaar yi nga xam ne xibaar yu uh, gàtt la daanaka ñetti article rek lañ ci am uh, bu njëkk bi mooy marka mi nga xam ne uh, génn na ci xëtam bu njëkk tey jii jooy yi nga xam ne moom la miro doon jooy bi muy jàkkaarloog journaliste yi waaye tamit bi muy tàggatoo Real Madrid nga xam ni ñam fa doon footballandoo ak supporters ñoom ñëpp la doon tàggat ci loo xam ne ah, daanaka jataay la boo xam ne bu triste la woon jataay la boo xam ne bu amoon solo ci moom waaye nag la mu fa yebbi ci kàddu te mu amal solo ñëpp mooy man mii di Casemiro dinaa dikkaat fii nga xam ne mooy Real Madrid dikkaat boobee nag mën na noo njortu mu nekk bu jeexal saison euh, bu jeexal carrière am mën na noo njort tamit mu nekk euh, dikkaat boo xam ne tamit comme en tant que coach wala mu nekk ci biir euh, dirigeant yi Madrid bu fekkente ne presse nangul na ko tamit jël na kàddu gi gërëm ko sant doomu brésilien bi nga xam xam ne defal na lu na Real fukki trophée ak juróom-ñett keneen koo xam ne daanaka bëriwuli trophée mu nekk Eric Bailly yi nga xam ne ca Manchester United ah, la nekk waaye fi toll nii équipe ba soxlaatu ko ah, te ma nga jóge woon ah, ci équipe yu mag yi nga xam ni fa la newoon fu ci mel ni France demoon fa la nga xam ni moo nekk Angleterre waaye ba mu demee daanaka ñoom ñi demoon ñëpp danoo mujj sax ca Angleterre à part sénégalais yi fa am euh, quelques réussites ñu ci bari danoo mujj euh, nërmeelu ku ci mel ne moom ak ki nga xam ne mooy Nicolas euh, Pepe ñu mel ni moom moom mi nag Marseille moo ko soxla woon Marseille gi nga xam ne tàng jëpp bay lakke la def fi mu toll nii daanaka bu xëcc la soxla fi mu toll nii bu ngeen déggee bu xëcc mooy day xëcc ñoom Eric Bailly ak ñi nga xam ne jël na leen Alexis Sanchez waaye tamit day buux ña nga xam ne ñoo nekk ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ñoom keneen koo xam ni bàyyi na ba Sadio Mané dem mu topp ca jaan ja di dóor mooy Mouhamadou Salah mi xam la ni Ah, man mii ba jàppoon ñi ah, dama doon concurrence a Sadio Mané loolu musul am gone ak Sénégalais gi bu ngeen xoolee saison bi nga xam ne moom la ñu mujj football saison boobee li ëpp ay passes décisives yoo xam ne moom gone ak Sénégalais gi am na ko man mii di Mohamed Salah ah, maa maako ko passe mu nekk passe yoo xam ne yu àndoon ak yéene la kon gone ak Sénégalais gi nekk na koo xam ne ku ma sopp la